Bienvenue sur Salam Vision. salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk àddina salaamaaleykum mbokk islam waaye salaamaaleykum mbokk internet bi kenn ku ne ñu ngi lay nuyu sa tur sa sant di leen ziara di leen baal wax di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala boole ñu jéggal tabarakallahu ñoo ngi fii ak Serigne Djily di ko ñaanal moom it yàlla na yàlla gën a guddal nekk fekk daayira bi nga xam ni dañuy liggéeyal Mame Cheikh Fall waaye dañuy liggéeyal borom subhanahu wa taala koo xam Serigne Djily xam ne yàlla rek ko ñor yaakaar naa bii mooy suñu deuxième interview ak moom bu ñu juumul keroog buñ ko fekkee di Serigne Serigne Cheikh Khary Fall. Serigne Abdou Lahad Fall mu am ay waxtaan bu ñuy waxtaan mu Serigne Cheikh Fall mu Serigne Cheikh Fall mu de mu mu sëñ Mor Moussa mu Mame Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a guddal fanam nekk kilifa tamit bu mat kilifa di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla taxaw ko yàlla tey nag ñu ne ci guddi goo xam ne ci la Mame Cheikh Fall daje woon ak Mame euh, ci bis bi nga xam ne mu nekk ñaar fukki fan ci weeru koor ci Mbacké Kadior kon mu mel ni kon tabaarakallaahu bis boobu nekk ne bis boo xam ne ñor na leen lool lool lool waaye balaa ci dugg rek ñu bàyyi sëriñ bi rek mu nuyoo mu nuyoo pare ñu amay laaj ñu ko laaj rek mu tooñ ñu kon bisimilah. baax it seen taxawaay ci maanaam ni ngeen taxawee say dafa ah, ah, bu mel ni tey bis bi la moom la maam Cheikh daje woon nag maam Borom Tuubaa ci Mbàkke Kajoor lan ma fa xewoon Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul loolu nag maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko wane tombe bis bi di ñaar fukki fan ci weeru koor tombe bisub dibéer ci la Cheikh Ibrahima Fall jëlee boppam jox ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul jébbal ko léppam ñu am ay kàddu yu ci waxante ñoom ñaar Cheikh Ibrahima Fall xamal ko ne ko man de dama topp tànkub yàlla ba mu sës ci kër gi sëñ Bamba ba ko kër gi de Cheikh Ibra Fall yàlla ngi fi waaye jullee fi nekk ak woor ak natt asaka ak génne muurum ko moom ko woon Cheikh Ibra Fall waaye lan doon wut muy islam boobu sëñ Bamba xam na ne xool na bunt yëpp waaye ci buntu sëñ Bamba rek la nekk te it boobu suñ borom tegtal bi mu ko jox mooy Serigne Touba Xaadimu Rasuul moom Cheikh Ibrahima Fall bu ñëwatoon ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul moom Serigne Touba dana ñëw ba dem bu jaam ñi loolu moo andi boobu booleb kaw la waaye du booleb suuf maanaam suñ borom namoon la ngir Cheikh Ibrahima Fall bu ñu jaam ñi loolu moo waral loolu bu amee looloo waral bu suñu jëf ak suñu lépp rek maanaam weeru koor jotee nga xam ne Serigne Touba moo ko moo moo moo moo gan bu mag muy weeru koor mu bëgg ko ganale maam ko bis bi muy bisu weeru koor waaye rawatina nag maanaam bisub taw maanaam da cee rawati ndax bisub bii tey mooy bisub dëgg ci yoonu murit mooy bis bi nga xamante ni mooy bis bi gën a risque yoonu murit ndax euh, bis bi bu amutoon seen bàmb dana ñibbi kon bis bii tey maam Cheikh moom moo jiw ci taalibe yi wala. moom bokk na si ñu njëkk ci taalibe bi mooy ñeent fukkeelu taalibe ci bi ñuy ñëw ci Serigne Touba fekk na fa ay waaye lim ba nga ni seet naa seet naa Omar mais tolloon na ko ci saaba yi bi mu ñëwee ci ñeent fukkeelu saaba noonu la Cheikh Ibrahima Fall tollee ci lim bi nga xamante ni ñëwee na fi ñeent fukki taalibe yu manqué benn waaye ba mu ñëwee moo doon ñeent fukki waaye bu ñëwee ci kër gi nag dafa fekk mag ñi jàng alxuraan di def sàpp yooyu sëriñ bi boobu bi jàngal alxuraan waaye maam Cheikh Ibrahima Fall la teg yoonu tarbiyu kon yoonu tarbiyu boo déggee tarbiyu ci moo ko dugal ko sëriñ bi waaw mu mel ni mu ngay ñëw léegi da nga ni ah, ku mënoon jaamu yàlla la ku xamoon yàlla la kon maam Cheikh Ibrahima Fall bi mu ñëw si mu ñëw si maam Borom kon fekk na mu fees dekk Cheikh Ibrahima bi muy ñëw sëriñ Tuubaa fekk na lépp lu doomu soxla ba xam ko mm-hmm. jàng na ba ku mënoon alxuraan la ku ko mokkaloon la it ku ko miinoon la ñoom ne xeeti jaamu yàlla yëpp daan na ko jaamu yàlla ndax am na ñoo wax sax ne Cheikh Ibrahima bi muy ñëw Sëñ Tuubaa kaamil ma daan naafile guddi gi jot waaye boobu li Sëñ Tuubaa yor te woor ko moom xam ne li koy maye muy liggéey moo taxoon ñu ñëwee mu jël dégg nga léegi ne moom bu muy ñëw moo nekk ñeent fukkeel ah, am na ñu fekkoon waaye mu mel ni kon ah, lan moo ko may tey li mu am ni coono murit ba boo nee ba boo nee maam Cheikh Fall ñu ne baabul murit yi la. waaw eh, gën a gëm rek ak nangoo jëf ndax dafa ñëw fekk fa mag ñi bëree nekk ay jàmbaar loolu ñoom mag ñi waaye yàlla suñu borom saa su ne ba may dimbali nit ñi bu yónnee nit ki da koy boole ko ko feeñal euh, Cheikh Ibrahima nag sëñ bi mag ñi fa neewul ay jàmbaar lañ lool waaye nag Cheikh Rafal ci boppam la suñu na moo ñu nam mën a moo tax mu boole ko si Touba ci boole googu noonu ngir sëñ Touba euh, ngir suñu borom bëgg ñoo dimbali moo tax mu boole ko sëñ Touba moo tax euh, Cheikh Rafal bi mu ñëwee doon jàmbaar lool ci kër sëñ Touba di liggéey di joxe suñu saako am na fu muy waxee naan euh, yendoo liggéey fanaane root kon loolu day mel ne kon maam Serigne Fall moo ko andi kër Sëñ Tuubaa waaw ko yendoo liggéey Sëñ Tuubaa bu guddi jotee jigéen ñi di leen taxanal di loolu nag nangu moo ko mayoon nangu moom mooy may lépp ci ci àdduna waaw ndax wolof day wax ne nangu gën na ci lu ku ku nangu te topp rek kenn du la topp te Cheikh Ibra Fall dafa nangu la topp Serigne Touba jël lépp jëmul Serigne Touba ba tey ji ak njabootam noonu la ñuy doxee soxlawul dara lépp Serigne Touba la waaw mu mel ne dégg nañ ci mag ñi ñu ne am na taalib yoo xam ne sax moom Cheikh Ibra Fall da leen doon yaraat foofu noonu dañ daan toogandoo sëñ bi si kaw waaye bi moom Cheikh Ibra Fall ñëw loolu yëpp si la jeex waaw yoonu tarbiyu moom sëñ sëñ Cheikh Ibra Fall moo ko andi ko Serigne Touba loolu ñu naan tarbiyu moom ak taalibe sëñ ndax nee nañu Seydina Jibril ko jàng ndax keroog bu ñu gisee Cheikh ko ci sëñ li nga sëñ Tuubaa ci biir góor yàlla waaye Cheikh Adama Gueye sëñ Tuubaa Touré moom ci la tegtaloo ba dem Mbacke Kajoor nee na keroog bi mu jugee sëñ Jibril moo ne ko maa lay jàngalu taalibe nee na ne ko nu ma def def ko nee na mu gisee Seydina Jibril daal di sukk raam jëm ci sëñ Tuubaa nee na mu sukk moo ne raam jëm sëñ Tuubaa mu dem naa Jibril jox sëñ Tuubaa ñaari loxo sujjóot nee na mu jox ko ñaari loxo sujjóot nee na seen naa Jibril làmb ci jibaam ci poosam ak juróom wàllum sëñ mu def ko kon seen ba dañ ko jàngal ak taalibe waaye loolu bi ak tarbiya moom normal sëñ Tuubaa bu toogee ci kaw nga toog ci suuf doo toogandoog sëñ Tuubaa sol mbaxana bu lay liggéeyloo nga takk der nangoo nangoo nangoo nangoo nangoo nangoo sonal sa kilifa kenn doo ci am lu dul jaajëf loolu moom Cheikh Ibrahima moo ko indi kër Sëñ Tuubaa day mel ne yoonu loolu yoonu tarbiya Cheikh Ibrahima waaw lan tarbiya tarbiya tarbiya tarbiya te bu muy ñëw ba ne arro daan na fanaane naa ko wéeru koor te lu mu bëggoon mënu ko am kon yenn yi bu jaamu yàlla rek moo ko mën a joxe waaye liggéey dafa ni mën a déggee liggéey moo ko sellal sa bakkan joxe sa alal la ko gën a gaaw sellal sa bakkan oh. waaw joxe sa alal la ko gën a gaaw Cheikh Rafal dafay boole woon di liggéeyal Sëñ Tuubaa ak di ko def maanaam tar bi mooy liggéeyal nit ku baax ku yàlla gërëm liggéeyal nit ku yàlla gërëm moo gën a gaaw yëggeel nit ci yàlla kon nga jaamul sa bopp rek moo sëñ boo directement nga demal sa borom suñu borom moom kenn mënta jugal sa bopp pour rek dem fa faaw ñu dimbal la nga doog a dem. mais waxtu wala wasila wa jaay fi si moo tax wasila mënta ñàkk faaw rek mu am faaw nga am bootu ci nit nit a Seera Fall ba mu ñëwee am lu mu bëggal ci suñu borom moo tax mu bootu ci ko ginnaaw sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yi si muy dégg muy Sam Fall bi mën nga ñu wax ni lan moo ko sos lan moo ko indi yàlla di ko benn benn waaye ci jamono si moom Moussa a nag mu di xewee ñu ngi nuyu bu baax sëñ Moussa Fall borom sëñ euh, Moussa Fall moom sëñ Cheikh Fall Fatick ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu rakkam sëñ Blac Fall ak mboolem njabootu ñu gépp la sosoon li nga xam ne mooy Sam Fall sëñ Cafal Baye Góor defal loolu ba tey jii loolu di wéy ci ak njabootam muy Sam Fall da nga doon tudd yàlla gi sëñ Maliou Sam Fall daan na wax ne képp ku képp fépp fu ñu koy defee ku bokk ci kuréel ga xam nga ñii di Sam Fall te yaa ngi seen benn tànk ñu ngi doon ku koy soox sëñ Maliou Sam Fall nee na képp ku koy def di soox lii bu ëllëgee bu ëllëgee nii ngay duggee àjjana mu sëñ Maliou Sam Fall nee na ku ko ku ci bokk nii di soox sa tànk bi ñu jéggal say bàkkaar te tudd yàlla gii ñuy tudd yàlla di suñu suñu mbaxane yi di torox ni malaayka yi suñu borom day wàcc ba suñu asamaan yi seen seen ronkañ seen ronkañ yërmande yi day tàmbali seen dugg. est-ce que moom tur yàlla li ci làmb bari na waaw li ci làmb bari na. moom tur yi mooy turu dëgg. tur yàlla rek moo fi nekk. moom lu ko inspiré lu ko inspiré ba mu jël baatu laa ilaaha illallaah bi di ko di ko di ci ne di ci ne di ci ne tey ba alhamdulilah rabbil alamin tey ñu bëreetul boo waxee boo nee laa ilaaha illallaah sax ne illallaah faal. waaw laa ilaaha illallaah moo fi njëkk te moo fi mujj. Ah. ndax góor yàlla yi fi yàlla yónni woon yëpp te ñu woon fii. ci baat hmm. bi lañ taxawoon. Hmm. ndax suñu borom am na ñu yónni woon laataa Muhammad hmm. boobu diine ñëwagul. am na leen la fi nekkoon muy islam. islam nag moo dul yàqu islam mooy baat bi. waaw islam mooy laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah loolu nag ci la Cheikh Ibra Fall sax ci la saxal ak ñu gis si koñ boobu léegi. alhamdulilah rabbil alamin récupéré nga euh, jeunes yi bare bare bare bare bare euh, teg leen ci yoon rawatina tey ñu seen leen ñuy tudd baatu laa ilaaha illallaah euh, liblu suñu borom la waaye am na lu bàyyi diine ah, am na lu ko yàlla cëral bëggoon tey ngay wax ñu tuuti rek lu lu la ma la ma daal. waaw man de sama secret mooy jëfe ndigal bàyyi tere rek waaw laxas ci ginnaaw Cheikh Modou Moussa lu mu ma digal ma def lu mu ma tere ma bàyyi foofu rek laa nekk moom nag moo ma dimbali ci mbaaxam bi ndax lii may yëngu nii tey yàlla ak moom la yàlla ak jëmmam ji la nag ndax moo ma ko tàllal nit nag suñu borom dana koy sàkk mu nekk nit ku baax lool waaw faa bu boole ko nit nit kooku bokk ko mën a wane ndax man damay wax ne man bàyyi ji man ca gaay yàlla yi laa bokk te xam naa dama ca bokk Cheikh Moussa Fall bi sama kilifa ba mu ma yebal fii daf na ma bàyyi ji ma ne ko Fall mu ne ma ci gaa yàlla yi nga bokk da ngaa dem si jamono waaye nag yow de sama moom Cheikh Fall laa liggéey la kon liggéey boobu loolu fii sabab bi te liggéey rek lañ mën a def buñ defee leneen lu ñu liggéey it bu ëllëgee dañ ciy am ay dóomoy suñu borom kon liggéeyal yàlla rek lañ mën a def ndax loolu la ñu suñu borom sant waaw kon ñoo ngi seen jiir yi ah, ñoo ngi lay nuyuwaat baax a baax di la ziar ma amaan mbégte di toog ndoog yow ah, di wax ni ah, guddi gi mooy sa première guddi fii ren ah, te dañuy ñaan yàlla gën a guddal sa fan ndax yaa ci am ay yeneen xalaat. waaw xalaat bi nag mooy saa su ne rek ñuy ñaan suñu borom ci doole suñu tubaab seerafaal liggéey bi di gën a jëm ndax ñun bu ñu sañoon ñëpp rek ak fu ko waaye mën a defee rek maanaam di sax ci lii lu baax ba dama leen def leen képp ku ngeen gis mu baax danañ ko warmaal. wàccuwaay ba ko yàlla jox fépp fu ngeen mën a sàkkoo lu baax danañ fa dem di ko fa sàkkoo tey bokkoo tey bennoo tey ñu tege ci njub ak dëgg ndax jamono ji daa yëngu lool jamono ji daa doy lépp waaye nag dëgg nag moom dëgg na dëgg ah. ah. nee na xorondom fi muy jaar ah. nee na la ñuy roñ mhm. amul solo waaye nee na yoon wi bu dagg mukk bu ñu roñut dem rek danañu roñ ñëw kon yoonu yàlla moo nekk noonu nañ yor jikkoy xorondom rek bu ñu yoree jikkoy xorondom lépp luñ bëgg dina mën a am waaw nee na it mbir mi booy dëbb nee na nga dëbb ci digg gënn gi rek nee na jarut tas tasal it nag boo dëbbee ci digg bi lépp loo bëgg di nga ko am kon nañ dëbb ci digg bi rek digg bi nag mooy yàlla waaw ci lii la nekk xalaat biñ ci am nag mooy ñu ngi fi di liggéeyal Sëñ Tuubaa ak Seex waaw ñun nag moom xaaruñ kenn déedéet ñu sëñ Touba Serra Fall rek la ñaan waaw sëñ Touba Serra Fall rek la ñaan seetuñ kenn xaaruñ kenn ñun la waaw liggéey bi daal moom sëñ Touba bi ñu ko jox Serra Fall bi ñu ko jox moom dina ko téye te dina ko continuer ba fu mu bëgg mu yegg fa dina ko yegg te incha allah fu mu bëgg mu yegg fa sëñ Touba dina ko fa yegg incha allah te loolee maam Serra Fall lan ngay ban message ngay lancé ñi nga xam ne dañuy woote ak Baye Fall waaw ah, Baye Fall day jëfe ndigal bàyyi taw rek Baye Fall moom dañ koo yomb waaw yomb yombul. déedéet. waaw jiitu boobu loolu loolu ñu wax rek yombul. waaw waaw yombul. yaa ngi yàgg Baye Fall daal yombul de. Baye Fall dëgg boo ko bëggee gis. da ngay dem kër sëñ Mawla ak moo tax ñu bëgg a yóbbu ñu Mbàkke. mbaa nga dem kër sëñ Cheikh Fall Mbaor. boo fa demee ba gis ni Baye Fall doxee nga xam ne Baye Fall yombul. liggéey ak ni mu méttee. am alal ak ni mu neexee. nga mën a jël li nga liggéey lépp ak li nga am lépp. bët bu set nga togg ci ay xéewal yu bari lu tolloog ay millions dem jox ay nit ñu barkeeloo te yow doo ci ñeme woo cee ñam bépp ceeb loolu yomb loolu julleeg war moo ko gën a yomb. waaw maa ngi dégg benn waa lii sax du jëfu nit lii moom lii du jëfu nit daanaka lii jëfu malaaka waa xam nga léegoo nag ni ma dégg nit mu ne lii jëfu malaayka la. xam nga doomu aadama a kawe malaayka. waaw waaw mais xam nga tamit nag li ñu wax ne du malaaka du lekk du naan. waaw doomu aadama ñu mën a dib ci la la ya'suuna llaaha maa yaf'aluuna maa yu'maruun lekk ñu naan loolu yàlla digal lu la ñu bàyyi. bu mel ni wax leen di comparé ak malaaka yi ndax du ñu mooy digal a <laughs> ah. moom. lu lu sama borom lu sama borom euh, defar la rek muy mbindeef moo xamante ni moom. Ah. moom suñu borom ni ko sàkk moom rek moo ko xam. Ah. waaw moom rek moo ko xam. fi mu toll nii yemul ci ndogo yi kese. tabaski bi xarit tabaski yaa ngi taxaw fi mu toll nii korite ngi taxaw. li war a jëm kër sëñ bi ak sëñ bi li mu war a jóg ci ci ci néew bi doole yëpp yëpp mu ngi taxaw. Ah, màggal mu ngi taxaw bu ci ndox yi rek la yem ndox yi rek la gaa yi gis waaye fi mu toll nii bu bu bu tabaski jotee ay ay ton ay ay ay camion camion euh, xar la ñuy yem yóbbul ko sëñ bi. daal ma amu dara fàggu fàggu rek te gëm ma. waaw ah, neexul nag yombut waaye neexul lu ne da nga ko dégg waaw Cheikh raw waaw njurul njurul jàpp mooy tax a jab raw su mu toll Faal yéen ñi dégg ci mbedd mi yëpp ay Baay Faal lañ te jëfewuñ ko rek nekk ci la leen neex moo tax nit ñi Baay Faal rek waaye Baay Faal dëgg noobul lay doon day siluwise foo fekk day sol lu set di dund yàlla te xam yàlla wér te du ko umpale seen saa loolu mooy am. waaw loo looy wax ci looy wax ci seen YouTube def interview bi du Sam Vision. waaw xanaa di leen sant rek te di leen ñaanal ak doole ndax mënu maa def sant leen ndax bis bu ma am ñëw ngeen teew ci. te te dañu gën xam naa du yem fii. ndax maa ngi maa ngi maa ngi dagaan. ni ngeen ko bëggee ñu dem ba ci sëñ ci jotee ci ndigal rek incha allah loolu dina mën a am. incha allah kon ñu ngi leen di ñaanal ak doole ko ak yokku. fu ngeen bëgg mu yegg fa rek mu yegg fa ndax fu ngeen ko bëggee yéen a ko xam waaye Cheikh Rafal dana leen ko defalee noonu waaw ndax ñun bisub tey bi luñ ci ñaan suñu borom da koy def waaw ci doolee Cheikh Rafal am te lépp ñu ngi leen di ñaanal ak dooleeku di fasante ak yéen kóllëre gu dul dakk bu mukk nag ndax fii de yéen a ñu fi njëkk a fekk waaw fii yéen ñu fi njëkk a fekk te it liggéey bi yéen rek lañ koy àndal waaw yéen rek lañ koy àndal waaw <laughs> jërëjëf kër jërëjëf yàlla yàlla fay la kontaan nañ baax a baax a baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet bi mbokk YouTube bi ñi ànd ak Salam Vision di ñu seetaan tey ñoo ngi fii Cité Pépinière ànd ak seen jiili mi nga xam ni euh, tabaarakallaahu ba mu duggee ci koñ ba léegi liggéeyal Maam Cheikh Fall waaye liggéeyal Maam Borom Tuubaa mooy liggéeyal Borom subhaanahu wa taala tey nag ñoo ngi ñaar fukki fan fii ci weeru koor gi bi nga xam ne moom la Maam Cheikh Fall euh, daje woon nag suñ suñ Maam Borom Tuubaa fële ci Mbàkke Kajoor ba muy ñëw nag fekk na mu nekk góor yàlla waaye ba mu ñëwee wax am na wax yi moo xam te maam maam borom Touba am na lu ko maam waaye nag ñoo ngi fi euh, di jëw li ci sëriñ jiiri nekk taalibeem lool gëm ko yaakaar ko waaye ginnaaw bi loolu wax Ahmed ginnaaw bi la jiiri yaree ni la war a yaree nga juddoo ci yoonu maam maam maam borom Touba naam ba toll ci tey dem ba toll ni nga toll nga xamante seen jiiri fan la la seen jiiri fekk ak fan la la yóbbu asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu ginnaaw bi ñu jullee si yonent bi di sant Serigne Touba Mbacke bu baax di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Ndake moom Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal tala xalifatul xaam suñu taxa Mbacke Bachir di suñu yàlla borom yokk leeram yokk xelam ci loolu Cheikh Fall di ñaanal nag ci Cheikh Jëmb Fall xalifa ba day Baye Fall suñu borom yokk ay fanam teew ko wér ak tawfeex di ñaanal xalifa borom daal almukti suñu Basir Abdou suñu borom yokk ay fanam ginnaaw nag li nga ma laaj nii suñu diggante ak Baye Jili Baye Jili kat daf ñoo dimbali ñoo dimbali si àdduna dimbali ñu fépp nag fekk ñu feneen nag in ñu feneen ku ñu xamoon dem ak tey am na coppite ko am na bu baax a baax a baax a baax melokaan bi ñu amoon bu ëllëg ak tey jii waaw dañu sant sëriñ bi rek ndax sëriñ bi moo namu suñu ak baax moo namu suñu ak dimbali bàyyi ji nag moom daf ñoo dimbali amaana bëggoon nañ Serigne Touba amaana ñu ngi doon dund Serigne Touba waaye moo ñu gën a xamal Serigne Touba moo ñu gën a xamal Cheikh Rafal moo gën a xalaat baax na ñuy dundee Serigne Touba daaw ñun yóbbu ndax ñun mos nañu yóbbu sax njëbbal waaye njëbbal ci loo xam bii nañ ko jaaree di ko yóbbu kon nag daf ñoo dimbali daf ma dimbali adduna defal ñu alaxira kooku ndax de ku dégg li ñuy wax si njëbbal kon nag war na laa jaral lu ne bu ñëwee nag xamal ñu loolu nampal ñu loolu kon nañ koy sant bu baax ñaan yàlla sa borom bàyyi ñu si kanam ba liggéey bi mu sumb ak ñun suñu borom mot lépp ci doole Cheikh Rafal ñu ñaanal bi mu nam kër sëñ suñu Cheikh jëm kër Cheikh si Cheikh Fall kër euh, moom Cheikh Rafal borom mot lépp suñu sang bi bàyyi jili liggéey mu si kër suñu Fall Cheikh takk der kër maam Cheikh Birame Fall suñu borom mot ma bëgg xam mooy nga màggal bis bi nga xam ne moom la maam Cheikh Rafal dajeeg suñu membre trois muy ñaar fukki fan ci weeru koor ci euh, Mbacké Kadior daan nga ko màggal wala c'est la première fois ci ren. ah li may laaj ñi kat jàpp naa ne c'est la première fois ñu koy màggal. Uh-huh. comme ni mu la ko waxee ab dér rek. Uh-huh. sëriñ bi moo ñu xamal ñuy dund se Arafat moo ñu nàmpatal si Arafat moo ni ñu mel moo ñu ko def c'est la première fois ñu def ko fii c'est la première fois ñu def ñaar fukki fan yi koor bi fii le deuxième jour koor bis bi Sëriñ Tuubaa di gis na teg si Arafat moo xam ne Cheikh Rafa ci la gis Serigne Touba di jébbul si moom amaan ñu koy doog a ngi jaare si jëmm jee ma bàyyi ji kon yéen euh, jëmmu Baye Fall bi ak turu Baye Fall bi yéen ko doon dégg nii rek mais deseen ngeen ko dund waaw mën nañu wax deseen ngeen ko dund ndax bëggoon nañ Cheikh Rafa tey bëggoon nañ ko lool tey yaakaar nañ ko lool waaye bu ñu demee ba xam Cheikh Rafa ko dund di dund Baye Fall ba nit ñi dañuy gis dañuy def ab Baye Fall wala dañuy xoolee bëgg Baye Fall yàlla ak Baye Jili la yàlla ak suñu Moussa ak Ibrahima. waaw euh, bi ngeen di Sam Fall nii muy baatu laa ilaaha a bi lan ngeen ciy yëg. ah baatu laa ilaaha illallaah bi de wax dëgg yàlla sëriñ bi moo ñu jox ndigal na bis kuy ñëw si Sam Fall bi na set wicc ànd ak njàpp da set service ah. bi boo gisee loolu ñu si jublu ah. ndax dara ay foo newu si say xool ay tout temps ci nekk ah. ay xale rek a ci nekk ñii nañuy jàng ñii nañuy liggéey ñii amaguñ liggéey waaye nag sëriñ bi rek moo la ñor sooy xool malakaan yu weex yi ñuy def dañuy jublu doomu aadama yi rek ndax li ñuy def nekkul ay caaxaan da cay indi yar ak teggi ndax si si si lislam ñu bi nag moom mu ngi def ay coppatiku yu baax suñu diggante bi suñu diggante ak mbokk taaliba yi ak ne dañuy woote ab Baye Fall te lu tilim di sol yu salt te kenn xamul lu ñuy niróol ban ah. message nga leen di lancé Baye Fall nag moom ah. yombul ah. waaw doomu aadama ñoo ko yombal Baye Fall yombal ku ko yombal yaa ngi nax sa bopp ndaxte maa ngi dégg si ab waxtaan Serigne Abdou Khoudous bu doom yi maam Thierno naamal daaru amoon benn taalibe mu jóge Italie indi ay taalibe ñu doon ñu doon ay nit ñu weex mu ne ko Mbàkke kat ñii kat ay Baye Fall nañ dama bëgg ñu tuub mu ne ko ah ako gaaw ñii kan lañ tuub ba doon ay julit ba doon ay murid ba doon ay Baye Fall kon Baye Fall yombul kon Baye Fall su ma ay grand la ay grand la waaw doon murit nga nekkee murit boo nekkee murit doo ko nekk moo gën a kawe yooyu waaw Baye Fall moo gën a moo gën ah. ndax koo xam ne dañ laa tegal julli ak woor ah. kon kooku beneen affaire la ndax suñu borom dañoo sant ñun ñu koy jaam te julli ak woor bokk ci ponk si si cinq cinq ponk l'islam yi kon suñu borom bu ko teggee loolu ah. kon Baye Fall kon beneen anam la te weeru koor bu jotee nga gis Baye Fall li ñuy si kër Serigne Touba togg ay xéewal lu du ko def du ko kon Baye Fall. li ñu naan lii sax du jëfu nit. du jëfu nit nit mënu ko. nit mënu ko jëmu nit léegi. waaw Cheikh Fall li ñu xamul mooy lan. Ah. jëm ñu ñu àndal. mosul li ñu xamul mooy lan. Ah. ndax Cheikh Fall jëm boobu. dafa egg si yàlla. avant mu ñëw si Serigne Touba. Ah, waaw te nag waaye nag dañ ne Serigne Touba yàlla laa topp ma yebal ma fii ma dugg sa kër kon Cheikh Fall li ñu xamul lan la ndaxte yàgg naa wër Serigne Touba Serigne Touba nag li ñu xamul la waaye Cheikh Fall li ñu xamul moo tax ñaari jëmm yooyu nag benn nañ duñu ñaar waxee maam Cheikh Fall ne Babul Mouridina waaw te moom njëkkul ñoo ci taalibe yi waaw waaye daanaka moom daal bu ñu waxee bu yoonu murid rek ñu ne buntu murid rek mooy maam Cheikh Fall mooy Cheikh Fall dañal gi bi ak tout temps que ma di la wax ne kat liggéey baa ngi nii liggéey bi yombul dañuy ay ndaw nag di doog a doog yaakaar Serigne Touba yaakaar Cheikh di sàkku seen ngërëm nag li may faral di wax man day su ma namee am liggéeyal ma Serigne Touba Serap Fall yàlla mu am yàlla naa tumuranke si àdduna tout temps kii moom moo ko daari tamit noonu la ñuy doxee nag lii ñu nekk nag lu baax la ndaxte lii ñu nekk nii kenn amu si 30 ans kenn amu si 27 ans ay xale ndaw rek a si nekk waaye ñu bàyyi lépp ñu dëlmal Serigne Touba dëlmal Serap Fall Serap Fall mi am ndam Serigne Touba am ndam yàlla na leen sàmm sàmm ñu suñu teel ba ànd bi ñu am si lu di ñaanal nag Baye Djili Fall suñu borom leeram suñu Baye Djili Fall suñu borom yokk ko bu baax a a baax yokk kattan gi yokk mën-mën gi ci doole Cheikh Fall di ñaan suñu Moussa Fall Cheikh dëkk der bii wasila si kër si maam bi ba si maamam si maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom mot lépp loolu Salam Vision ah, Salam Vision moom ah. nee naa leen ah. ba ngeen si cant da ngeen di yokk te Cheikh Fall laa ngeen di ñëw di teew Cheikh Ibra Fall teg loxo ba ngeen xam ne Cheikh Ibra loxo loolu bëgg nag kalaama leen ko jëm jee lépp na ko matal te al Ibra Fall dina leen teg loxo ba ñëpp dégg leen kon ñooy woon fii Cité Pépinière ànd waa waa def déplacement ñëw ba fii kër Baye ji di Mbaye di taalibe Serigne Cheikh Serigne Cheikh Moustapha Fall mu Cheikh Takader fa tabaarakallahu di ko ñaari yàlla yàlla gën a guddal fanam ziyaare ko am na ñu waxtaan léegi léegi maak moom ci yoonu maam borom Tuubaa waaye nag bunt bi di maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko léegi léegi lu tax bu ñu waxee yoonu murid rek suñu waxee maam Cheikh Fall ñu ne baabul murid diina te du moom moo fa njëkk waaye daanaka li ko fa yàlla jox moom rek la fa jox te jàng nañ ci téere yi tamit ni moom ba muy ñëw fekk na mu fees dekk bay tuuru daanaka à l'âge de sept ans fekk na mu mokkal alxuraan bu nit ñi daal fekk na ma mokkal na kon kooku du du xam-xam moo ci maam borom Tuubaa waaye am na lu mu doon seet ci góor yàlla yi jaar na fu bare nag dañuy wax ne góor gu mujjee gis mooy góor sox mooy góor gi Adama Gaye moom moo ko tegtal moo ko tegtal ci maam borom Tuubaa ko li ngay wër mooy mel ne rek li waa ji doon laaj ku dara ni ko demal seet Seydina Muhammad mooy ñetti ma ñetti ñetti ñetti mandarga soo ko gisee si kooku ci waa la nekk mu mel ni bu muy ñëw si maam borom Tuubaa fekk na mu fees waaye am na lu mu manqué woon nag waaye jëmm ji tamit bi ko yàlla dogalee mu ñëw fii Cité Pépinière ay xale yu bare fii ñun ñoom ñoo fi booy wax da wax ci loo xam ne dalaa leer ndax wala taktumu shahada wa nekk fa innahu asmu xalbu kon li may wax lu ma xam la xale yu bari fii tey ci samay loxo la ñu màggee ñu xam leen bàyyi jiiri am fu mu ñëw am am fu mu leen fekk am fu mu leen yóbbu te ñoom wax nañ ko sax ñu dégg kon bàyyi jiiri atallahu amruhu wa ayadahu nasara yal na yàlla gën a guddal sa ñu toog nag sëriñ Sidi mi nga xam ne fa tabarakallah bokk na ci daanaka moom sax xëccul taalibi bokk taalibi yi eh, ñu xam ko ci zikkar xam ko ci lu bare bare nga wax léegi léegi ni Baay Faal yombul ñu te ñoom euh, yàlla dogal na tey ñun nekk jour bi nga xam ni moom la maam Cheikh Fall daje woon ak maam Borom Touba ci ñaar fukki fan ci weeru koor ci Mbàkke Kajoor di fa xew lu bare xew fa lu bare ñoo xew fa waaye ñu bëgg xam rek Serigne Sidi lan moo la nàmpatal ci bi nga juddoo ci yoonu lislaam wala sax nga dabu ci dugg ci yoonu maam Cheikh Fall yàgg ci tey nga gis ba jiir Djily tey mu gënal la sa bopp. waaw. ñu ngi ziare kilifa yi fi nekk yëpp. suñu tuddee bàyyi jile bi nga xam ne mooy suñu kilifa ñu ngi koy ziyaare waat bu baax si loxo Ahmed mu jàll ko mbooloo yëpp ñu fi teew ñëpp waaw ñu ngi ñaanal télé bi ñun bi muy muy télé Salam Vision ñu ngi koy ziyaare waat bu baax yàlla suñu boon dafa ko mu gën a yokk kattanal lépp ñu ngi ziyaare mbooleem kilifa kii ñu fi nekk ñëpp mm-hmm. waaw comme question bi mu ma laaj ni dama si sawar a tontu ñun amuñu loo xamante ne lu Serap ñun lu ñu nampal ñu si jëm boobu ñun xamuñu ko sax barke sëñ Abdou Karim Mbacké maam tey nii sama sama maam sama joxu yoonu lislaam wala sama joxu yoonu Baay Faal mhm. man man ba may nekk si beneen diine sa Baay Faal la barke sëñ Abdou Karim Mbacké maam ñu ma doon nekkal fii ñoo xam nañ si ba may nekkoon si beneen yoon sax man damay nekkoon si beneen neex ma waaw bokk ñoom di ànd ak ñoom si lu bëri mais nag loo xamante ne tey mhm. foo mënta jaar sunu mm. borom la mm. te sunu borom mooy bind lépp mm. doomu ma fu mu war a jaar te sunu borom moo koy bind ma kenn xamu woon ba xam man fa laay juddoo fu may mujjee kenn xamu ko te borom rek moo xamoon tey nag da nga si satal sunu borom bu baax te yoon wi ñu def ñu nàppatatu na ñu doon Baay Faal ñu koy jaajëfal nag sëñ Abdou Karim Mbacke bi sëñ Fall maam fu ñu tubee sa dafa yéeme nee na ma maa leen di tànnee sa ëttub mu Moustapha Fall comme loolu raw tey mu nàmpal ñu sudu Baye Fall tey ñuy dund dund Baye Fall ak di sëñ Fall tey jii nag damay am mbégte si bisu tey jii ba kii sëñ du Karim Mbacke xam nga kañ laa am mbégte démb ma bisu Serap Fall rek sama xol lay yëngu maam dama bokk si diine l'islam maa tey soo gisee xare badar du ko jiitu jàmbaar ñu fi nekkoon ak kii sëñ Abdou Karim Mbacke Serap Fall daa jël ndab bi yëpp teg ko si loxom mais comme tey ñun si jullit mm-hmm. l'islam mm-hmm. saa yu bis bi ñëwee ñu mm-hmm. doon war a sant suñu borom santaat bu baax kam moo waral bis bi nii tey su ñëwee maam maam tey ku tedd gi maam weer bi ba muy feeñ si gàttal weer bi muy feeñ di ñëw ndax mbégte la si moom mais sax daf ay xasaay ah, sax ay xasaay yu bëri ah, sax ay xasaay yu yéeme yoo ah, xamante ne ñun nag suñu mbir sarul maam si gàttal lu du ndobatal yoo xamante ne kilifa yi maam mel ni Baye Jili mii yoo mm-hmm. xamante mu ngi koy tokka suñu nopp mm-hmm. ñun loolu lay foree chaque jour di ko wax mm-hmm. xamuñu dara jànguñu dara mais si mbiru serafal moom dañ la si jàngal leen loo xamante ne tey bu ku tedd ki ba weer bi di ko gàttanu ba muy gàttanu weer bi maam mbégte amoon serafal daa jël mbégte boobu na ko sa gan bii di ñëw de man maa koy bennal ba mu delluwaat te su may delluwaat loolu noonu mbégte lay doon si man te dama koy gën a teral mu mel ne ma dégg nga ne yow démb nga commencé bég commencé bég Euh, ba xam ndax euh, bi nga dalee ñëw bi Pépinière ba léegi yaa ngi fi maa fi li nga yëg nii tey am fi tey bi Pépinière muy teewal tey delloowaat njukkal maam Serigne Fall bis mi nga la dajee woon ak euh, maam Borom Touba daan ko fi yëngal wala wala daaw ñu ko fi waaw bis bi maam daan nañ si yëngal loo xamante ne si jëm boppam hmm. saa yu weer koor ñëwee fi lan la ko defee hmm. comme lu nga ko waxee rek saa yu weer koor ñëwee hmm. su motee si mel ne jour yoo xamante ne maam du tombeel bis bi sax mais dañuy sant bis bi avant bis bi di ñëw lay sant parce que parce que yàgg nañ fi def ay ndogu fii ne yàgg na wute naag bii de wute naag bu ren ah. lu ma waxoon lu ma lu ma waxoon jamonoy passé rek laay waxat sunu boroom dafa tetal nit koo xamante ne nit ku sell suñu borom dafa tettal nit ku sell tettal nit ku baax tetal nit ku yërmandew boo leen tam mu bokk suñ njaboot Seera Faal lamp Baabul Muridiina muy Baay lu ma waxoon jour boobu laay waxaat rek ba kii sëñ Abdou Karim Mbacke kii lu ko indi suñu biir sax ñun xamuñu ko ba tax la daan ngeen feeti bis bi daan nañ ko maggal maam seera fa ci la dajeg waaye bi am bii nii ren man man maa ngi bëgg yàgg cité waaye maa ngi koy doog a gis am bi mu am ni dafa ah. Ah. changé na lool mhm. maam doon na loo xamante ne dafa rëy suñu bët mhm. ma li ma gën a yéem ci bàyyi jii du question sax yéem mais li ma gis ndax euh, wa maa shahidnaa illaa maa alimnaa du flirté ko tamit ndaxte bu may faatu sama biir baa mel du moo fekk te lu may wax rek dama ciy xool yàlla te sama liggéey laa nekk mais li ma gën a yéemi ci bàyyi ji day damay dem ci kuréel yi man xam ngeen ma damay dugg ci Baye Fall man man daanaka dañ naan ma Baye Fall buy laaxatu laa man maa ngi seen biir xam ci lu bare mais dama gis ni bi Baye Fall yi nga xam tey moom la ñoom la récupéré fii daf may fàttali yi ma daan gis Thiès dañuy sol yu lu set civilisé xëy neex ba pare bëgg baatu laa ilaha illallah mu wóor na ni ñoo ngi koy wax te du damm waaw comme li nga wax rek maam la nga feeñal mbir bi yëpp ah. nee naa la tey sunu borom su la boolee xamante ne dafa sell mm-hmm. am baax yiw mm. barki sëñ Abdou Karim Mbacké moom lu mu la wax mm. si loo ngay fekk si mm. te soo xoolee tout temps gi lu mel nii tey ni leen meloon yow ba nga fi ne man xam naa si moo tax ma la ko balaa ma ne bi ma gisee kuréel bii ñu sel bala man lu leen inspiré si balaa bi moom si jëmmam bi la nag sëñ bi lu leen inspiré si balaa leer rek <laughs> ah loolu leer ah lépp leer rek bëgg lépp leer waaw man ma gën a yëm ñu mooy balaa bi balaa bi nag tawfeex la ah, mu tànn balaa bi ah. daa doon yërmande loo xamante ne si jëm boobu. balaa nag dafa lu lu lu ko taq rek lu ko taq lu ko taq mu feeñ. balaa léegi kon yéen yéen taq waru balaa dafa bokk si lislaam. Ah, mais balaa lu ko taq mu feeñ. dëgg lu ma la wax yi ah. ba léegi badar laa ba ñu nekk si badar laa. Ah. di badar. Oh. saa yu pare day yeesuwaat yeesuwaat ba solaat balaa lu rafet. Mm-hmm. soo leen xool ñoom ñëpp. waaw lu weex lay sol. waaw loolu am na moom. kon ñoom dara tax na leen. dara taxu kon nag loolu nag moo nampal si Baye Fall yi Baye Fall yi tey mm-hmm. Baye Jile day ñëw defar leen tànn leen foo xamante ne si jëm boppam mm-hmm. fu mu leen tànnee ñun xamuñu ko mm-hmm. mais Baye Fall yombul de mosul yomb yombul de joxe sa alal man de du ma joxe li ma yor man barki sëñ Abdou Karim Mbacke ah? <laughs> ah? yombul ah ah yombul de déedéet ak liggéey dem dem jéeg-jéeg saa ne xel comme jot nañ nga fàtte lépp jëm ne loolu yombul loolu du mos a yomb ah maam tey dañ koo liggéey yoonu lislaam dafa yomb mais xaw li sax xaw na neex benn côté sax. yoonu lislaam yombul ah sax xaw na neex yenn saa yi sax ñu teggil la yenn yi mais yow Baye Fall. yoonu lislaam yoonu lislaam yoonu lislaam yow Baye Fall yi. dañuy togg ay mën a mën a mën a mën a mën a mën a mën a ginaar ak xar ak bëy mais duñ ci ñam dara lépp lu ñuy séddale ba mu jeex. waaw non maam jëmm ah? ji. même mais nag lu waral lu waral lool noonu. Ah. Omar lu waral lool. Ah. loolu Serap Fall moo ñu ko def. mais loolu tarbiya la wala loolu am na secret bu ci nekk man loolu war na war ngeen wax li ci nekk. maam secret bi daal mooy doon Baye Fall bi rek comme Serap Fall lu mu def si ñun. Ah. ñun fa doxee. gars xam ne fii bu ñu tiimee lekk gi pour ñu joxe ko sax pour ñoom buñ ci ci biir jeex mais ku togg ay ba pare yenu ko nag te buñ ko yenoo du ñu yëg ni sax mi ngi tàng. waaw loolu mooy tawfeex Serap Fall rek. moo nit loo xamul bu ko diingal. waaw noonu la demee nag mais ñun si jëm boobam fu ñu tënk rek. Mhm. xam nañ ko bu baax. looy wax Baye Djily. Baye Djily dama koy ñaanal suñu borom yoon bi mu nekk nii barki sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla na ko Serigne a taxaw. amiin man nag lu ma waxoon kilifa yi rek laa leen waxaat. Ah. maanaam daal xam naa ne jege nañ ko. Ah. jege nañ ko loolu. Ah. mais barki sëñ Abdou Karim Mbacke lu may toog moom bëriwul. Mm-hmm. mais lu xam si moom xam naa bu baax. dëgg la loolu noonu lu mus a feeñ. Mm-hmm. jëm boobu. Mm-hmm. kii sëñ du Karim Mbacke lu ma gis moom ba ñëw si moom ba toog ak moom di waxtaan ak moom. man xam naa ko. mais nag doo si ñamal si des. dañ bàyyi noonu rek ma xam naa lu ah, baax mais nag boo xamee ma bakki ah. sëñ Abdou Karim ba xam ñii dañuy jëriñu ñi ñoo ngi jëriñu ah. bañ toogee bàyyi jili laal lu ma xam si moom laa la wax bakki sëñ Abdou Karim Mbacke du toog lu ma toog fenn waxoo looy wax ci xale yi ànd ak yow ah looy wax ci xale yi ànd ak Baye Djily waaw dama leen rafetul rek di leen ñaanal suñu borom hmm. a yokku kattan bi ak hmm. mën mën ak doole bi hmm. ñu ñëpp Cheikh Ibra Fall yaa nu woon ndoxum tarbiya ñuy bay gerte ak dugub muy addiya Seex Faal yaa nu wan siraatal mustaqiim ilal jinaani lahi yàlla mooy kariim Seex Ibra Faal yaa nu wan ndoxum tarbiya ñuy bay gerte ak dugub muy addiya Seex Ibra yow ku la gëmul ba faat yawmal xiyaam du tabiyal jannatullaah fa tabarakallahu ñu ngi woon fii ci cité pépinière ànd ak sëriñ Jiili fa tabarakallahu ñuy doog tiim léegi léegi sëriñ Sidi mu wax ñu ci ay mbir yoo xam ni yu yu ci maam Cheikh Rafal waaye man li ma gën a yéem ci maam Cheikh Rafal euh, léegi sëriñ Jiili wax na ko léegi léegi euh, dafa dafa am lu ma fàttaliwaat bi Seydina Mohamed euh, gars yi laaj ko ni ko nan la ñuy jullee mu ni Jibril ni ko sallu kamaara ay na defal ni ma defee te maam Cheikh Rafal nee man Jibril moom ma jàngal ni ñuy tarbiya moom moo raam raam raam ba ci membre am Tuubaa génnee ci poosam joxe man tamit ma génnee sama poos joxe wan ne nii la ñuy tarbiya kon moom Sëriñ Faal ni mu doon doxee kon Jibril moo ko jàngal kon abdullah ka annaka taraahu in lam takun taraahu fa innahu yaraka kon nit boo tëlee tëb jàppal da ngaa tëlee tëb mais bu la ñëpp dañoo tëlee tëb kon mbir te am na léegi léegi am na loo xam am solo balaa nga doon Baay Faal da nga doon jullit boo doonee jullit doon murit boo doonee murit doo ko doon Baay Faal kon Baay Faal yombul kon kon sëñ bi ñoo ngi leen di baax baax di jégluwaat ci kàddu yi nag du yar du teggin waaye suñu liggéey la rek waaye fa tabaarakallaahu kon sa njiiri ñoo ko waxoon def nañ ko te incha allah rabbi kan la ñuy jëlaat sëriñ Cheikh ak Daouda tu ginnaaw bu ñu santaate yàlla rek ñoo ngi fii ba tey Cité Pépinière génnaguñ fi ànd ko Baye Jilé euh, moo nga xam ne mooy jëwriñu xale yi ci yoonu maam Cheikh Fall bu ñu waxee maam Cheikh Rafa rek wax maam borom Touba bu ñu waxee maam borom Touba rek da ngay àgg kër borom subhanahu wa taala balaa nga fay jaar a ngay jaar ci Seydina Muhammad ba mi nga xam ni jël na lépp mu jox rasulullahi maam maam borom Touba wax na ci xasidam bu réy ba mu ne bu Seydina Muhammad nare tànkam na war a laal dëkk dinaa jël sama lex bi teg ko ci mu jaar ci kon ko bëgg rasulullahi la ñu mel ni tey daawuda tey ban yëg-yëg nga am rek ginnaaw bi nga toogee ak Baye Djily alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla bu baax di gërëm ñi fi nekk di sant jëmm ji fi toog di wax ni wa kullu amin bi antum wa xayrin wa afiyatu wa baax du uridu an aqra ila xadratikum ma taysara lii mina surati quran di wax ni lépp mu ngi tënku ci alquran maam Cheikh Ibrahima Fall génnul alquran Baye Jili génnul maam Cheikh Ibrahima Fall kon jotaay bi li ko waral ak ndaw ñii mu dajale ak cër bi nga xamante ne nii jox na ma ko ci boppam ak cër bi mu jox ñi mu dëkkal ak ñi fi ne ci loolu lay wax cër bi ma jox mën naa ni moomuma ko ndax yàlla ko sax waaye sans borom nu boole ab maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina bi mu nu boolee ci diir bu gàtt ma yëg ci jëmmam ji loo xam ni mën naa ni yëguma ko ci ci jamono ji ñu toll ci yenn jëmm ci yu bari ci àdduna mooy koy yëg ci jëmmam ji ndax fi jamono toll dañoo soxla dëgg soxlawuñu ay kàcc soxlawuñu luy naxe soxlawuñu lu koy nduru ba noppi te doonu ko wax naa ko ci daayira bi passé sang nag ma jéggal maa ngi lay nuyu sax bu baax ndax maak yow boobu ba léegi gisewuñu te daayira bi passé ci misaal dama wàcc ñoo wàccee jubal sama kër sama xel ni yar ci moom ngir lu mat juróomi fan ñëwul kër ga ma ne xaaral ma jóg pour ñëw fii bi ma ñëwee di ko laajte ndekee jour boobu la altine mooy jouru daayira bi xaw ma ci dara ma dajeeg ab soxna soxna bi leeral ma ni ma bàyyi jiili dafa dem Touba ci laay doog a xam ne daa dem Touba mu ma ci bis boobu daayira am na su ma juumul soxna saa ngi ci biir jotaay bi bi mu ne ma daayira am na ñu ànd maag moom ba mu won ma fi daayira am bis boobu waxtaan nañ ci dayra bi waxtaan ci bis bi ñu doon waajal tey nag dama guddee wàcc waaye jëwriñ ji noonu la ko waxtaanee woon te it xamal ñu lu bari ci bàyyi ji lu ñu xamul woon ci bis boobu ñun ñi nga xamante ne ni ay ndongo lañ nag te Serigne Touba la ñuy fu ñu mën a nekk ak maam Cheikh Rahma Fall lamp Babul Mouridina moo tax ñu topp ko topp goo xam ni amuñu ci mën naa ni dayo amuñu ci benn regret. te ñu ngi ñaan yàlla ànd bii ñu ànd ak moom ñu ànd ko ba ci kanamu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridina ngir ànd bi jubluwuñ ci dara lu dul dañoo toll ci jamono joo xamante ne nii dëgg amatul mën naa ni yàlla yàlla jéggal nag ci wax ji waaye soo déggee ma ni dëgg amatul mooy dëgg daa néew waaye fam doon am ba léegi ma nga fa am ndax fa ndox daan taa boo demee ba léegi fekk fa ay tepp-tepp kon ña daan baax démb ñu ngi baax ba tey waaye nan la ñuy baaxee ak gan baax la sëñ Tuubaa soxla ak maam Cheikh Ibrahima Fall ju muy def ci nit ñi ñu def ko ci ndaw ñi baax googu la ñëpp yi ci jamono ji muy li ma wax ni alxaqu min alxaqu ja alxaqu bi xaqin mubinin kitaabun bihi narjo minallaahi rahmatan yërmande yàlla mooy aju ci doomu aadama bi nga xamante ne nii dafa euh, am nammeel aku sàkkutéef goo xamante ne daf koy sàkku ci digganteem ak boromam ngir jariñ ca ñeneen ngir loolu nekk mbir mu yaatu woo xamante ne ni kenn ku ci nekk danga nga cay mos la nga ca war a mos muy jëm joo xamante ne nii gis naa ni mën naa leeral dëgg fii ci kanam xëy na jotagul nag ndax loo gis am na chaque chose à son temps du nekk ak heure am ndaw la bëgg yàlla comme ni ndaw ñi fi nekk bëgg yàlla di doxal ci nanuy doxalee ci ci yoonu yàlla moom nag mu am fànn ga muy doxalee ci yoonu yàlla fànn googu ma ko ciy sant bu baax te di ko ñaanal bu wér nag ndax ndax gox bii mu dëkk kenn yebu ko fi ku fi nekk jox nga ko cër semaine bii passé xaw ma bi ci topp daayira bii passé bi ci topp bi ñu àndee maag moom ba fii dama gis soxna soo xamante ne nii na mu doxalee diggante mag moom te mi ngi ànd ak doomam ma xam ni kii am na yëg-yëg ci Baye Djily man it boobu am naa lu ma yëg ngir xam naa ni woyof gi mu woyof képp ma waral fii mu nekk ak fii mu làqatu ndax jamono dafa yàqu gis dëgg jafe kon dafa du yow kon a waxaan nga ko kon su amee li mu am ci koñ bi du question koñ bi ñoo ko jox waaye moom moo ko liggéey. jërëjëf waaw xam nga lii mu woote dafa jafe. da nga wax léegi-léegi alxaqu. min alxaqu ja alxaqu. nga dëgg day jóge ci dëgg dëgg. bu leer naa waaw waaw da nga ko wax ci arab mais waxoo ko ci olof ñi lay dégg. waaw xam la la. waaw da ci narju min allahi rahmatan bu nga mën a am yaakaaru yéen ma des suñu subhaanahu wa taala jërëjëf jërëjëf ku baax xam nga soo gisee jëmm yu jaf maanaam jëmm yu mel nii di jafe ci jamono ak di raar ci jamono mooy comme li ñu doon waxtaan sànq maanaam dañoo dem di toll ba toll ci jamono boo xamante ne nii li koy nduru te ko xam nga Sëñ Tuubaa bind na ba bind te ko waaw parce que xam nga tey xam nga tey mm-hmm. euh, euh, euh, ku tedd kii dafa wax ni moom moo ko wax de tax fàtte naa ne xasida ba mu nekk waaye xasida boobu ku ko gëstu xam ko malibasu su bamima wuju haza jajajaqu wasanisa zaqaxa wuriri na xam nga loolu li muy tekki lu ci ëpp mooy li ngay gis mu di ko nduru nga jub ko fekk du ko ah, dafa ni nga seen benn ndox deux heures. waaw nga jàppale ndox la ba nga accès fekk ndox. loolu moo mooy xeetu ay rab koy def loolu. Ah, ah, xam nga loolu misaal la rek. ay rab ñoo koy def ci tali ku ne. ngay dox ba yàgg gis lu leer nañ ñi defee ni ndox la nga dem ba jug ci fekk du ko. naxe googu moo bari ci jamono. Mm. léegi comme naxe googu dafa bari ci jamono ñi toog ci dëgg ñi toog ci dëgg ñi xam ne saa borom moo leen dimbali ci dimbalam nag nga toog ci dëgg soo toogee ci dëgg mooy toog ci sa bopp toog ci sa bopp mi ngi firi laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ndax alxaqu bi ma wax sànq waaw mooy dëgg xam nga day indi ci tey wamin bashiri xam nga mooy gis-gis wamin kalimi xam nga mooy làmmiñ wamin fikri xam nga mooy sikar alhamdulilahi wa min zam mooy xol uh-huh. léegi maam Cheikh Ibrahima lamp baabul muridina wala moo tax nga indi tegtal yooyu yëpp indi wax gi indi dégg ba pare mujjee ci xool waaw kay jërëjëf parce que damaa xam ne moo tënk lépp ndax moo nu fi dajale uh-huh. xol moo nu dajale fii yëpp man du man may pour man de pour ñu lay déglu moo tax waaw dee man rek la man dama a laaj waaye du pour man waaye ñi lay déglu ñu dégg li ngay wax xam nga ko dégg ak déglu lu dégg naa mën na mën nañ la déglu te duñ la dégg dégg na ñu dégg xam li ngay wax la waaw ku nite ku nite mm. xam nga nit dañu nit yaa ulul albaab bi jërëjëf borom xel yi la yàlla di wax ah. merci beaucoup waa léegi ah. xam nga nit mm-hmm. nit dañu koy nit mm-hmm. tey ci misaal ma jox la benn exemple léeg-léeg ñu ne diw ku nite la léeg ñu ne diw mm-hmm. nit la mm-hmm. waaye su fekkee maanaam nit nga ku mën a niit uh-huh. xam nga nit moom baatub nit niit lay firi rek uh-huh. parce que nit googoy tax nga mën a xàmmee ak ràññee mm-hmm. parce que xéer xàmmee da koo gën soo xéree te xàmme woo da ngay sonn te doo jariñu dégg wax bi xér léegi nag ñu ci ëpp ci jamono bi ñu toll xerte la ñuy demee ci sëñ bi te sëñ bi newul ci xerte parce que bu nekkee ci xerte rek iblis tàbbi na ndax iblis fa mu nekk mooy kii demee loo xam te ne du sagoom lay tax nga ñàkk sago kooku sëñ koy def ci yow sëñ bi yaa ngi dégg li may sax lay tax ñàkk sago uh-huh. ba tax ba dañuy xool nit di diw de amatul sago uh-huh. wala amul sago ci diw uh-huh. kooku sëñ bee def ci nit ba tax doo am sago ci kii wala ca moom moom sëñ bi parce que moom moo wax ni wallaahu yansuruni wal xalqu tatba'uni fil barri wal bahri zanafsun bila darari alors Sëñ Tuubaa moo ko wax njëriñ lu benn lor ni nu koy firee sëñ Sam maa ngi lay siyaare bu baax ni ñu koy firee ah, alhamdulilah ñoo ngi sant daal di bëggee tey wax ni bis bii te Sam moom leer na ko ni bis bii mënu woon ñàkk sama digganteeg moom Sam mii toog dëgg la dëgg la fanaarakallah ci yàlla yàlla def jàmm sang bi ñoo ngi lay jégaluwaat wax nañ ni sax du jeex kon fanaarakallah ñoo ngi fii ba léegi di am ku ñuy jëlaat rek ci njaboot gi di Serigne Cheikh ah, di ko ziara moom it comme ni ñu jëlee daaw de jëlee ko Ahmed jëwrin bi noonu la ñuy jëlee ki nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh ñu bàyyi ko rek mu nuyoo Serigne Cheikh bisimilah salaamaaleykum. billahi min asheytaani rajim allahuma salli ala sayidina wa maulana wa wasilatina ilayka ñoo ngi leen di nuyu yéen di nuyu mbooloo mi fi daje yëpp yëpp di la xaar nag. waaw xam naa moom xam xaw a timide xam naa ne doo kii kii bi rek ak cofeel bi ndab bu feesee rek. xol ñu xam ne moom mooy jëriñ bi la jar yooyu mënoon na ñàkk ndax waaye lépp ci yiw la. kon Serigne rek ñu bëgg a xam rek tey. ban yëg-yëg nga am tey ci ñaar fekk fan bi nga xam moom la moom Cheikh Fall jàkkaarloo na suñu membre bu waaw yëg-yëg moom xam naa ne du soppeeku dara dara dara ndax chaque jour. bi ñuy ñuy xëy di ko yëgee sëñ bi moom mën nañ ni amut soppeeku waaye tey comme tey day ñaar fukki fan yi nga xamante ni moom la Cheikh Ibra woon ak ku tedd gi Xaadim Rasuul ah waaw mën nañ ni day gën a yokk ah gën a yokk gi mooy di la ko mbokk yi di di di waajalee ak niñ la ciy xiirtalee ah, bu ko defee danga nga soppi doxin ci na nga daan doxee bu njëkk waaw loolu nag taw feex la jara wax fa dëgg neex yàlla ndax ah lii lan doon ñaan gise gii moom mënutoon a ñàkk ci ñaari jëmm yooyu waaw ndax bu ñàkkoon tey amaana daje bii du am waaw comme yàlla def na nag gise boobu am na ba daje bii mën a am ñuy sant ci lool bu baax a baax a baax. waaw. ñu ne la ban yëg-yëg nga am. <laughs> xam nga ni yëg-yëg bi eh. lu yokkul wàññeeku te lu wàññeeku yam fu mu yemoon. waaw kon li war nañu wuti si mën a yëg bi yokku-yokk war na mën a am si sa digganteeg moom Cheikh Ibrahima Fall ak sa digganteeg ki nga xam tey moom moo fi wàcc fii de di Serigne Djily tey li nga xam ne moom mooy daara bi nga xam ne da ngeen di fas yéene ay Sam yokkute ci diggante man ak Cheikh Ibrahima moom xam naa ni loolu mënuma la ko misaal ndax ñun danoo daanaka ban juddoo ba commencé ràññee suñ borom daf noo defar rek ñu am taw feexu di di yëg sëñ Tuubaa di ko dund fu mu mënti ne waaw yëg-yëg googu nag moom day màgg amul taxawaay te yàlla def na képp koo xamante ni yaa ngi ci yoonu murit bëgg mahabba mooy sopp ci la ñëpp di rawante te yàlla dafa def ni loolu am nañ si as tuut te bi mu ko defee ba nuy yéeg sëñ Touba di ko bëgg loolu dangay dem ba li ngay dégg ñu naan la Cheikh Ibra yëg la waaw day dem ba loolu mooy tabbi ci yow amaana li ngay soog a dugg nekkutoon Cheikh moo taxoon nga nga xëy rek dugg ci yoonu murit déedéet waaye da ngay dem topp sëñ Touba topp ko topp ko topp ko ba dangay ngay mujj doxinu Cheikh bi day feeñ ci yow ku la gis naan la Baye Fall. waaw ndax moom bu mu ñëwee ci biir kër mag ñi fekk na fa mag ñi mais seen comportement ci biir kër gi. daanaka wax nañu moo fa dindi comportement yooyu yëpp dëgg la pour nga nekk taalibe ci yoonu muy faaw nga doon Baay Faal dëgg la ndax moom moo fa indi tarbiya muy ñëw fekk na mm-hmm. mu mm-hmm. nekk ay ginaar yaa tax tey ma nekk asamaan nit ñi nekk ay suuf kon kooku doxinam boobu noonu tey bu yàlla dimbalatee ba ngeen am fi ku ñu wax seen jiil tey wàcc koñ bi tey ñu xam koñ bi xam leen xam ni ñaar fukki fan yi bu fekkee daan ngeen ko doxal wind man ah man fekkee wu ma ko kon tey bu loolu amee tey yokku-yokku am na ñu laaj la tey sa digganteeg Serigne Djily tey lan la waaw ah, sama digganteeg Serigne Djily nag xam naa ni waxti moom du xaw a yomb lu waral yomb ndax yàlla def na eh, bii mooy at mu njëkk moo xamante ni ci laay soog a jaxasoog Serigne Djily te su ma def na fi ñaaram ñett waaw loolu yëpp yàgg nan ma sama rak ji sama rak yi yàgg nan ma ne seetil seen jiili seetil seen jiili waaye nag yàlla mooy def comme ni ma leen ko waxee man maa du xëy rek jóg rek dugg ci dem dem ci li li ma nit di doomu aadama yi di wax waaw ma ma ma bëgg cee duggi nan ma koy waxee man damay toog ba samam xel ak samam xol ne ma jógal dem ma jóg dem yàlla def na nag bi ma jógee dem dajeeg moom ah gisuma fa lenn loo xamante ni luy lore la te yàlla daf ma defal man boo ne ma nit ku baax la waaw surtout côté jaamu yàlla sax laay wax boo nee ma nit ku nangoo jaamu yàlla la ak ku baax man damay jàpp ni war naa mel noonu waaw man noonu lay doxee boo ne ma di diw dafa baax yaa ngi may ñaax yaa ngi may ñaax ci ma jaamu yàlla te chaque jour ah ñoo ngi jéem luñ mën rawatina nag ban ko xamee ban ko xamee ba léegi nag saa sunum xel tàbbee sax ci moom dañuy dañ daan luñ daan def benn dañ koy dañ koy jéem a yokk waaw ndax bëggunoo yaafus bëggunoo ñàkk jom waaw kon su ma la déggee bi. waaw bi bi bi Iblis mhm. ko ah, ah, Seydina Mohamed daf ko laaj ne ko koo gën a bañ mu ne ko yow. ko lu tax mu ne ko li ngay tere yëpp la si gis. Mhm. waaye li ngay déggal yëpp yaa si jiitu. dëgg la dafa lay doxee génn. waaw ma man man noonu lay doxee noonu lay doxee ak man ah. te xam naa ni noonu lay doxee ak ñëpp. waaw waaw ko cat. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. dernier kàddu rek bu tàggatoo ndax waaw di ko ñaanal nag yàlla suñu borom bàyyi bàyyi ko fi waaw te lii nga xamante ni yan la waaw boo xamante ni mi ngi fi wala mi ngi ci yoon wi saa bu agsee suñ borom defal ko ci tawfeex kattan ba lam ca nam yëpp mu àggale ko ci kattan suñ borom ak baaxam bi jaay nabil Moustapha. kon fa tabarakallahu yéen a ko déggandoo yéen ñëpp ñoo ngi woon fii nii si pépinière ñoo ñëpp di baale di jéggul na ci kàddu yi nag sëñ Sambay sëñ Sambay. Ah. dafa mës a wax sëñ Sambay dafa mës a wax sëñ Sambay dafa mës a wax nii. Ah. maanaam ki nga xamante ne nii sa borom def na. Ah. mu lay digal. Ah. li mu lay digal da cay ne. Mm. fekk dañ ko laaj mag ñi. Mm. yar wiñ daan yar. soo gisee muy def jeexital ca kañ daan yar. Mm. lu ko waral. mu ne lañ lay digal dañ cay ne. lañ lay tere dañ koy bàyyi. seen wax du weddi seen jëf. seen jëf du weddi seen wax. la ci seen biir mooy seen biti. la ci seen biti mooy seen biir. ah lu jafe nag ci jamono yi toll lu jafe lool nag waaye yal na yàlla doolu sutura yal na yàlla barkeel yal na yàlla taxawu bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi woon fii nii cité ànd ak ko waa Salam Vision ci chaîne YouTube bi internet bi fataarallah jataay mag yi ñoo ngi nuyu ñëpp di baal àq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Bienvenue sur Salam Vision.